bonjour c'est qui ça. ok père la différence entre ak nous ndax ñu xam tamit. nous nous enraciné déraciné. pourtant génération léegi nous ñoo c'est quoi le problème. Nous avons ngay ans Nous Nous avons da ans 16 ans 17 ans de télé. looy per lu waral loolu. da ngeen ko teel xam. laa ilaaha illallaah. est-ce na mel tamit. xanaa xamoo lëf bala nga koy nam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mu jafe la. ay. mbete ku ko màcc. li mu saf ki ko màcce ko xam. man de màcc ñoom xam nañu. waaye ñoom légaale xam naa xam nañu. ñoom xam nañu. ñu dégg nga ne doo sa doom bu séeba tas. ndaxte jigéen mbaxana la rek bopp la su kuur gi yoola met loolu du fa toog. kon tey est-ce que jigéen dana tëlee ni góor di tëlee. am na ay jigéen ñoo xam ne ni góor di amee ay yoom noonu la amee ay jigéen yi yoom. ah man de sama xam-xam moom eggagul foofu. bu fekkee jàng kon yow des nga jàng. waaw loolu moom fan lañ koy jàngee. wala ban scientifique moo wax loolu. c'est Sotrac qui dit ça. Sotrac mais qui est Sotrac. say argument. c'est parce que du ko seqee kii bokkul su ko seqee ak kële. ba léegi leeragul sama bopp de. ku nekk da nga am gu. maanaam. ku nekk suuf yaa Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassi. xanaa doonul li ma ko foog tey. ah cim yow gën a nga. <laughs> pourtant naa presque de. léegi ma màgg de. mag amul maas gaay jeex. waa père nag ci góor ñi. am na góor ñoo xam ne dara neexu leen ci këru àdduna lu dul ñu dégg ay fer yu yëngu. dimbali dafa. dafa am. père nag lii moom daal ñu ko affronté dara. wa père lu ñu wax. wax ci. xam naa tey moom man dañ koy noppal xanaa ñu jox prise mu ñaan rek. bismillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mustaqim yow malikuna bambara nga jàngale wala Yo yo, yo no yo, yo yo yo, yo,